yaa ngi koy lépp na yàlla ko man ku mën lépp amu fi te nag nañu waxtaan foo déggee nañuy dajaloo waxtaan mooy nañu dajaloo tànn ca la ñu doon waxtaane du la ñuy waxtaane lépp la ñuy jëla ah. waxtaan mooy ñu tànn ca lañ doon wax la ca dëppoog li nga xamee ne moom ngay def parce que dénkuñu ñëpp yow la ñu dénk kon ñëpp dañ la war a dimbali parce que moom la réew yaa ñoo ma ko bokk ku am xalaat bu rafet rek war na ñëw ci yow jàppale la parce que jàppale la du jàppale la jàppale boppam la ku ñëw ci yow gor na ñëw ci yow ku ñëwul ci yow fexeel ba mu ñëw ci yow loolu la yàlla sant saawiruhum fi l amr alquran la waxuma ko yàlla ko wax wa ida azamta fa tawakkal ala allah waxtaana lañ ñepp na lañ ñepp jox seen xalaat bul xeeb xalaatu kenn ba ci ñun ñii ñun ñii ñun taalibe ñi suñu xalaat ci la yàlla ne waxataana la ñëpp bu ñëpp waxee ba yeggal ba xool nga gis ne tuukat li mu wax ak li mu bëggoon benn la jëlal dugal ci ma gis ne lii dëppoowul ak sa programme amuloo droit dugal ko ci يلا ما لا واذا عزمت فتوكل على الله شاب دا ما غيش لا يا ولا تخول مو قال لي ميرو تي يلا ديف يلا عند حق يا علو ولا يغنى عليك دك فيتك ولب لند فيلك ودك انا حق يضر خير من باب من يصر واخ دك كو خامنا بو كو واخي ام نيو نيو نيو سين فولت موي دك ني واخ كو مو قال ني بان كو واخ دي رايتي لاتي كو خامنا ني غي واخ دار بو سي دك تي لودول دك كو كو واخ résultat négatif lay doon ñun soxlaawuñu négatif positif rek lañ soxla yàlla mën na la ko defal parce que si yéene rafet. kon tàllal nañ la suñuy loxo ñun amuñu fu ñu jëm. dégg naa sax ku ku ne naa dafa bëgg a nekk fii maire. fii nañu xam ne Ndakaaru la France wax ci fële moom lañu bëgg ñu def ko fii. Paris pour les Parisiens. Dakar pour les Dakarois. na leer. Paris pour les Parisiens. Dakar. pour rey Dakar wax jox man du ma dem Fatick ne dama bëgg doon maire du ma dem Fatick ne dama bëgg doon ilimaan parce que xamuñu ma mac wulul xaal laa mac wulul xaal mooy ku ñu xamul baayam xamuñu yaayam te nag fii ku ñu xamul sa baay xamuñu sa yaay kenn la fi ilimaan waa Tëngéej xamuñu xamuñu waa Ndakaaru waa Ndakaaru xamuñu waa Tëngéej donte ñëw bokk waa Tëngéej waa Tëngéej dañu mën a jiite waa Ndakaaru jiite waa Ndakaaru te waa Ndakaaru fukki ñaar kese ñoo kon xut bu tey bee du gudd daanaka loolu mooy wax ji kilifa bu sacrifié wu wane ne jaamu yàlla la ba mu jarlu ko mu bàyyi lépp mu nekk koo xam ne fu mu mës a moom la ñuy xaar fu mu ñëw fii dima xaar ay yoon kon jaadu na ma yemal fii waxtaan wi ñu def ñaan yalla defal ñu tawfiqu lillahi li ñu bëgg su gëné ci ñun yalla yalla defal ñu su gënul ci ñun yalla yalla wolo diko bu mu gënul defal ñu ko lu ñu ragal yalla bu ci gis dara yalla man nako sañ nako yalla yalla defal ñu bon suñu kilifa réew mi woyafal bopam ñu koy gërëm diko sant diko ñaanal diko ñaan yalla jappale ko lo yene yalla yalla jappale ci té nang ko gëm yalla dina la jappale parce que kenn tagu la fi mo la fi tek moo leen def ci xolu nit ñi nit ñi woteel kon góorlu gëm gëmal loolu dina la jàppale mais nag soo defee leneen nag mu xeex yow parce que nee na sa profession de fois moo gën ci yëpp kon def ko ñu li gis